fuugli guddi suba gi di ndokkeel mboolem ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mawlud bi nga xam ne mooy mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne euh, borom pay bi Cheikh Ibrahim mi ngi wax ne hani an li ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun bada linnazirina jamaaluhu mu ne weeru yonent bi teru na te mooy weer yi gën ji te mooy weer bi nga xam ne eh, ki nga xam ne lépp lu yàlla bind rek moom moo tax mu bind ko kon dëgg-dëgg mbégte ñëw na eh, kontaan ñëw na xéewal ñëw na ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ñu yàgg koo feete ñaan yàlla képp kuy ñëw ci gàmm gi yàlla indila ci jàmm di ñaan yàlla tam ñi def gàmm gi niñ ko war a defee kenn ku nekk delluwaat ci këram ca nam gën a rafetee ni anam fekk mi ngi ànd ak fajuk aajo fajug fajuk aajo faju soxla yi ak euh, euh, mbooleem xéwal ak mbooleem màng boo xam ne comme ni ko Mawlana Cheikh Ibrahim daan waxee rek ñi ngi ñaan yàlla képp ku fi teew rek yàlla na yàlla faj sa aajo ñi ngi ñaan yàlla tamit euh, Euh, yàlla na yàlla def képp kuy ñëw it nga ñëw ci jàmm dàllu ci jàmm bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di profité di ziyaara euh, xalifa cheikh Mouhamed euh, Mahi Ibrahim bi nga xam ne xaadimul umma la tuddee boppam kon kooku dëgg-dëgg ñu ngi profité di ko ziyaara di ziyaara képp kuy xalifa comme ni nga xam ne moom ci boppam noonu la jugee ne ñu ngi dugg ci weeru gàmm gi waaye ñu ngi bàyyi xel fépp bu xalifa nekk rek ñi ngi dëgmal euh, feete euh, gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ànd ak képp ku nekk fu mun a nekk di ñaan yàlla yàlla faj mboolem aajo yi faj mboolem soxla yi bi jaay rasulullah defal ñu naataange ci suñu réew defal ñu jàmm ci suñu réew bëgguma sax tudd benn tur boo xam ne damaa jàpp ne jeex na ba pare ba may bañ di tudd sax xel yi di ci demaat waaye yal na ko yàlla soril yàlla nañu yàlla defal jàmm te yàlla aar ñu musal ñu te guddal fan yi bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa macha allah askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di seen info international